asalaamaaleykum mbokku jullit yi ak mbokku Sénégal yëpp man Babacar Diallo bokk ci euh, li ñu naan euh, DG de la poste monsieur Pape Siré Dia man may nuyu mbokk jullit yëpp di baalu ak euh, mbokku jullit yëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan weer bi nga xam ni moom la ñu dugg ci bisimilah rahmaani rahim yàlla nañ ko eggalee ci alhamdulilahi rabbil alamin donc surtout suñu nuyu bu njëkk ni nuyu waa Thiès 24 di leen ziar ci weer bi di leen ñaanal yàlla yàlla ne leen yàlla fayal boppam. merci euh, loolu sax euh, xam naa ni boo ma ci laajee dina nekk laaj boo xam ne laaj bu ma neex la ndax euh, tey jii soo xoolee ku mel ni Serigne Abdou Aziz si Al Amin mu def ci loo xam ni. lu lu kawe suñu njort la waaye bettuñu lu tax bettuñu mooy que ni dafa jaar fi turandoom jaaroon muy Cheikh El Hadj Aziz li mu def ni tey jii waxtaan ci kii di njiitu réew mi wax ak moom wax ak enseignant yi ba ñu dégg liñ koy wax senegal yëpp dañ koy rafetlu ndax ñu nit doomu réew mi lañu xale yi ay doomu réew mi lañu kon yaakaar naa ni il faut que ñuy saytu seen i di xool fu ñuy war a teg seen tànk ak fu ñu war a teg seen tànk ndax ku ci nekk rek am na loo xam ne yaa ngi koy def waaye nekkul sa mbibét ndax kii nga xam ne moom mooy njiitu réew mi soo seetloo moom ci boppam lenn rek moom moo ko war mooy que ni mu fexe nu mu defalee réew mi defal nit ñi defal njàngalekat yi ndax yaakaar naa ni njàngalekat yi kenn mënu leen fay ndax ki xamuloon dara. nga dem ba xamal ko dara ba mu tey jii mu toog war a présenter wu pour def examen yaakaar na ni kooku loo ko fay jar na ko tey am nañu yaakaar ni yàlla dina ci def sutura ndax ni mu ko ñu ko ko waxee am nañu yaakaar ni yàlla dina ci def sutura waaw loolu vraiment vraiment ñuy ñaan aussi dëkk bi ñëpp mu dal ndax réew mi nekk na réew moo xam ne réew dal la réew dal la réew pas la te réew jàmm la kon yaakaar naa ne jàmm rek moom moo ko lal kon nag. tey jii li war mooy que ni mooy le président Macky Sall moom mu xoolaat bu baax a baax a baax a baax a baax a baax a baax nu muy dimbalee njàngalekat yi ndax ku ci nekk yoon nga sa njaboot yoon nga sa doom yoon nga sa say say say say say say am di jàmm waaye nag na leen dimbali jàppale leen ba nga xam ni fépp fu ñu nekkoon mu ñu tolluwaat fa ba mu romb seen njot réew mi am jàmm ñoom it ñu delluwaat ci jàmm xale yi delluwaat ci jàmm ñu mën a defaat seen def seen examen. anne bi war a bañ a nekk année blanche parce que année blanche arrangé wu réew mi arrangé wu ko moom ndax yaakaar naa ne liggéey bi nga bu rafet bi nga xam ni tàmbali ne di ko def ci réew mi hmm, kenn waru ko ŋaññ ci lu ñaaw waaw. yow homme lan mooy sa taxawaay ci langue politique. waaw euh, merci man euh, soo gisee ma dugg ci politique euh, daaw ma ko def sax waaye soo gisee ma dugg ci insiste mooy le DG de la poste monsieur Pape Sénégal parce que. le DG de la poste Pape Siré Dia moom moo ma dugal ci politique pourquoi mu dugal ma ci politique parce que dafa gis peut-être social yi ma xam moom lay def gis ni man kat am na yaakaar ci man ndax xool na nit ñi topp ma ci anam boo xam ne anam bu rafet la muy tey jii maa ngi ci sama mbébét di liggéey ci biir liggéey bi maa ngi jël ay xale di leen dugal ñu liggéey di leen wutal ñu liggéey te moom da koo dégg ba mu ko déggee mu xool xaw moo ni sax moom ci loolu lay dox waaye ba mu déggee loolu mu ñëw seet si ma boobu maa ngi nekk président ay Grand Thiès vraiment may dem phase nationale mu yëkkati xaalis bu bëri jox ma ne ma lii maa leen ko accompagner. ñaata jox nañu ci valeur un million cinq cent mille francs mu jox ñu ko nañu lii man maa leen ko accompagner waale pour ngeen dem jëli phase nationale indi ko fii ci Grand Thiès ndax yëfu région de Thiès la kon lii dama koy def effectivement ba ma ko joxee ma convier ko ma ne ko incha allah dinaa dem phase nationale jël phase nationale indi ne la jël naa phase nationale bi effectivement yàlla mu dara mu bëri sutura def ko ma jëli phase nationale indi ko mu ni ma nag ah lii de waxoon nga ma ko. ma ne ko waaw waxoon naa la ko de waaye man dinaa la fay bor bi noo ma koy faye ma ne ko dinaa dugg ci politik jàppale la te yàlla tax mu ni ma ah comme nag danga may defal lu rëy dinaa la defal lu rëy mu jël dugal ma biir pos may liggéey man it ma am courage di ko gën a jàppale di ko gën a jàppale di ko gën a jàppale te yaakaar naa ni Thiès du wane sax Thiès région de Thiès bi yëpp war nañoo xam ni monsieur Pape Siré Dia c'est un boo xam ni kuy jàppale doomu aadama la Thiès war nañ ko xam Pape Siré Dia bàyyiwul dara est-ce que xam ngeen ni Pape Siré Dia dinay jàppale sax nit wutal ko liggéey te du ko xam parce que nee na moom lenn rek moo ko ñor. muy réew mi na nit ñi liggéey na yokk développement bi pour nit ñi mën a liggéey pour ku ci nekk mën a suturu dugal ko sa biir kër pour woy jur yi daw bi ñu daan daw dootuñu ko daw ndax bew ci say wewu tànk donc ci loolu moo ma gën a dugal ci politique ma dugg ci politique te booba léegi yaa ngi ci moom léegi yow nii nga waxee nii dafay mel ni est-ce que kon yow yaakaar ni Pape Siré Dia ku dénk leng yi fii ci biir ko mën a doxal. ah si mais fi mu toll nii sax ñëpp xam nañu ni Pape Siré ku ko dénk leng yi da koy doxal te mi ngi koy doxal te li ci gën a yéeme mooy boolewu ci wax ju bari te mi ngi koy doxal te boolewu ci wax ju bari ndax bu dee côté social mu ngi dimbali nit ñi bu dee ci côté mouvement yi mu ngi dimbali nit ñi. beneen bi mooy que ni numéro téléphone am tëjuwul porte am poste tëjuwul te li ko président Macky Sall confié woon mi ngi koy doxal 24 heures sur 24 te moom it li mu confié woon président Macky Sall mi ngi koy doxal 24 heures sur 24. ci loolu lan ngay dénk yeneen responsable yi jëm ci mais yeneen responsable yi tey jii ku mel ni Pape Siré Dia xoolal nu mu fële bu fekkoon yeneen responsable yi ñu ngi doxal seen liggéey nu mu waree mais kon kenn du dégg Pape Siré mais pour pourquoi ñu dégg Siré Dia Siré Dia Siré Dia Siré Dia nu ko nit ñu saytu lu tax ñuy dégg Siré Dia Siré Dia Siré Dia Siré Dia parce que Siré mi ngi fiy def lu fi kenn deful c'est ça mi ngi fiy def lu fi kenn deful te nag yaakaar naa ni fii ku fi def lu fi kenn deful ñu waxal la lu ñu waxalul kenn. kon daal ñeen ñi ñu na taxawee daal dafa des. dafa des lu bari parce que leader bu nekk nekk na Thiès mais li Siré Dia di def nii. imagine toi ban leader lañ ma mën a saytu ni moo ko fi def ma dikk ban kenn mënuma wax ne ma leader sàngam nekk na fi ba jóge fi waaye li fi Siré def Siré def gisuma benn leader boo xam ne mën naa ni def na ko fi ku ko dégg dama ne kii def na fi nangam tey jii amul benn benn koñ booy dem te Siré jëlu fa benn nit gisuma ko fii ci cees ba ci ci yenn région yi gisuma ko fi tey Thiès foo dem Pape Siré Dia jël na fa benn nit lu mu bon bon bon koñ ba jël na fa ñaari nit ñetti nit amul benn social booy demandé Pape Siré te fajalul la ko te du ci boole wax amul benn invitation boo koy jox te yabalul ñun ñi nga xam ñooy ay ndawam ñu dem représenté wuñ ko fa amul xool ko ci élection yi passé xool ko ci élection yi passé ci goxam xool ko ñun ñii ay ndawam lañu mais tey jii moom moo ñu jël nañu comme dañoo nekk ci période élection dem leen ci seeni gox ngeen jàppale ña fa nekk man mii ci gox bi laa nekkoon muy si zone ouest bi laa nekkoon zone ouest bi ma nekkoon tey jii maa ngi woon ci Thierno Alassane Sall waaye damaa ñëw suma mbubb bi nga xam ne moom la ma Pape Sidi di joxoon ma ñëw ànd ak Thierno Alassane Sall pourquoi parce que ñoom ñoo bokk bennoo bi te tey ji bu ko loolu fekkoon mënoon na ko bañ a def mais def ñu ne dem leen ngeen jàppale leader yi nga xam ne ñoom ñoo nekk si zone est. bennoo doxal nañ ko a doxal dëgg dëgg ah, si ba ñu demee doxal nañ ko doxal nañ ko parce que boo xoolee APR ñun ñëpp ko bokk mais lan mooy problème bu APR ba ba ba ba ba waaw bon li ci war mooy que ni parce que ku ci nekk yaa ngi xëcc ci sa bopp. ku ci nekk yaa ngi xëcc ci sa bopp te yaakaar ne buñ nee APR yëpp le président Macky Sall la moom mooy njiit mooy njiitu réew mi te ñun ñëpp moom la ñu jàppale kon yaakaar naa ni amul benn leader boo xam ni war nañoo jël di ŋaayoo te nekkuñu benn tey jii boo xoolee ci zone ouest bi Siré Dia mi ngi ci zone euh, nord bi tonk hmm? zone ouest bi Thierno Alassane moo fi nekk Maodo Malick mbay moo fi nekk euh, Abdou Mbow moo fi nekk Hmm? Euh, waaw foog ñoo ñoo ñooñu ñoo nekk ci zone est bi mais instant bi nii boo xoolee ci zone est bi Thierno Alassane Sall ci ñu koy doxal ci la bokk Maodo ci ñu koy doxal ci la bokk Abdou Mbow ci ñu koy doxal ci la bokk ñun ñii nga xam ni ñoo dëkk fii ci Grand Thiès ci zone est bi la bokk mais tey jii bu neexoon Siré Dia mënoon nañu nii toog leen ngeen yem ak ñun mais déedéet daf ñu génn leen ngeen dem ngeen campagnal ñu ngeen campagne jàppale est bi. parce que ñun ñëpp bennoo lañu xoolal lu rafet loolu mu wax tey jii mu def ko kon cela veut dire que moom amul benn problème ak kenn aussi. léegi bu xoolee ci kanam est-ce que yaakaar nga ne affaire gi mën na dem ba jël dëkk mais da koy jël sax da koy jël da koy jël pourquoi da koy jël mooy que ni lu ñu fi dafa ko amul kenn koo xam ni def na ko fii ci APR ndax soo xoolee saytu yi nga xam ni ñu ngi koy saytu boo xoolee aussi. Euh, ci wàllu réew mi ñu ngi koy doxal ñu ngi koy doxal ndax li fi daawul am yëpp léegi mi ngi am léegi bunt yi ubbeeku na nit ñaa ngi liggéey ah nit ñu daan jëlee par exemple euh, euh, xaalis bi di ko pasar pasare pasar pasare amatul léegi soo xoolee soo xoolee lépp ñu ngi ko teg ci ay charte soo xoolee problème courant bi gis nga hmm? boo xoolee réglé na soo xoolee problème mu ndox mi réglé wu na hmm? am na période boo xam ne li fi am nii amu fi woon hmm. ah. mais Idrissa Seck kat nee na mu leen lu dindi la waa waa waa PDS pour pour mën a génne kii Karim. waaw xam nga xam nga xam nga xam nga aussi euh, loolu yooyu boo ko déggee yooyu ay wax yu yàqu la rek waaw yooyu ay wax yu yàqu la rek yaakaar naa ni euh, liñ naan ku aaye ku nekk rek danga war a wol sa moom hmm. fi mu toll nii APR moo aaye. comme APR moo ay ñun waxu APR ñun moo ñu ñor mooy ñu xool nan la ñuy jëlee askan bi pour dimbali leen pour jàppali leen ñu jëm kanam parce que tey jii euh, moom ci boppam heure bi waroon na ko fekk dëkk bi mu doxal ko avant APR du ñëw ndax ñun ay doomu Cees lañu kenn mënatul ñëw di xoj suñu bopp ak ñu dagg suñu bopp naan ñu xaar leen ma xaarleen ma xaar leen ba pare kenn ñu téye ci otage léegi amatul te ñun dañoo tolloon foo xam ni dañoo téye woon otage mais loolu dañ na pour pourquoi mu dañ mooy que ni Idrissa wax dëgg yàlla ñu ñëpp jàmm lu sëkk ak moom ñu ñëpp jàmm lu ñu sëkk ak moom waaye nag problème bi mooy que ni ñun nekk ñu ñoo xam ni ay doomu Cees lañu kenn mënatul taxaw nan ñu. nii wala nële nële wala nii léegi suñu lépp dañ ko teg ci ay charte charte yi mooy nit ñi seen bopp yi ubbeeku nañu maa moom Thiès maa moom ouest maa moom nord yooyu léegi exiger tout léegi lu exiger mooy liggéey ci sa dëkk toog ci sa dëkk liggéey fii waaye dem toog Europe ba mu neex la nga ñëw campagne jot nga ñëw di campagne ñun loolu ci doomu Cees yi yaakaar naa ni nit ñi léegi yor nañu seen bët di xool ak di teg lépp ci seen mbir ci charge waaye dootul léegi toog ba mu yàgg la rek nga dem Europe rek ñëw di wax naan ay maa moom fii maa def lii maa def lii maa nekk nii ak may jël réew mi maa ko moom maa moom Cees Cees kenn moom ko Cees ñépp ko moom ndax soo xoolee guddi yi ñu toll nii Cees wax ma ban leader nga fi gis boo xam ne mi ngi def lu Pape Siré Dia def rek laa bëgg nga wax ko tey ji amul amul doo ko gis te boolewu ci wax fësalu ko ndax lan ndax rus na kàddoom mu génn ci gémmiñ na ba pare mu retourné bu ëllëg gën ko yaa yaa waxoon lii moo tax waawam rek laa ragal mooy le DG sama kàddu bu mujj mooy. di dolli di santaat euh, képp koo xam ne mi ngi ci biir réew mi di santaat képp koo xam ne mi ngi ci euh, muy kilifa diine yi di sant toujours euh, di sant toujours aussi le président Macky Sall bu ma ko santee ba pare may sant le DG de la poste monsieur Pape Siré Dia muy sama xarit muy sama mbokk taalibe muy sama leader te gëm naa ni incha allahu taala bu ko le président Macky Sall confié am naa yaakaar ni li mu bëgg ñu doxal ko dinañ ko doxal fii ci réew mi. merci beaucoup jërëjëf.